waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waaye yéen wax waa la man li may laaj li may laaj waa kii Bouba Ndour wala ku doon kii ah kii Bouba Ndour kii waaw xanaa lii moom du laalu 2017 wala dara dara dara lii de lu yàgg la xam ah Bouba sa costume bi am nag réeroo de Bouba sa costume bi am nag de la ilaha illallah Bouba nag Bouba santal jàkkaarloo santal jàkkaarloo jàkkaarloo ñoo lay orienté léegi ci col te sax am na lu ma la bëgg bu boobaa plateau bu jàkkaarloo boobu da nga ko moom wala li ngay directeur programme du soxat ah yow da ngaa moom nit ñi wala lan ah rakk Youssou Ndour laa rek ah ne ci plateau bi di ñasaw ñasaw yi kenn du kenn du wax man danaa ñëw ci plateau bi ba xam yow yaa moom jàkkaarloo wala déet loolu daal laay xaar man it moom ma ñëw jàkkaarloo bu boobaa ñu jàkkaarloo ba xam yow yaa moom plateau bi wala sénégalais yi ñoo moom plateau bi kenn du wax xanaa sëñ Abdourahmane Mbacke yëgut lii lii nga nekk ci plateau bi sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ kosu asuloo xanaa yëgut lii nga nekk ci plateau bi ne kon mu kabas la ni la buuba àndal sa sago man hmm? jàkkaarloo